TV bonsoir ñu amaan mbégte dellusiwaat ak yéen ci seen plateau spécial anniversaire Ousmane laay di si karukatu laayeen bu mag a mag fii ci Yoff yaakaar naa ne kenn dootu ko présenté kenn tey nag mu fas yéenee ñëw rek waxtaan ak ñun ci li nga xam ne moom la dëgmal muy anniversaire bi muy amal suba le 4 euh, juin incha allah. fas yéene ceewoo laayeen yëpp ak bépp diine boo xamante ne yaa ngi yeewoo fii ci senegal rek moom nee na woon na la ci bisam boobu tey nag dinañ am moom waxtaan bu yaatoo yaatoo yaatu parce que Ousmane comme ni ma leen ko waxee ci njalbeen ga moom sikkarkat bu mag la fii ci Yoff laayeen ñu bëri xam ko nag dootuma ko présenté kenn bala ñuy dugg ak moom ci ay question dinaa ko bàyyi mu nuyoo waxtaan ak ñun tuuti ci li nga xamante ne mooy anniversaire bi muy dëgmal suba Ousmane ma lay maa ngi lay ziar. Mhm. di sant yàlla bu baax a baax di di ci yenn temps bu def ci Seydina Imaam bu mag bi alayhi wa salaam mhm. Seydil Arabi wal Ajam di ñaan Chérif Abdoulaye yàlla na fi yàgg te ànd ak wér. di ñaanal mboolem xalifa mhm. yàlla defal leen jàmm yàlla. sàmm yàlla aar yàlla mm-hmm. mm-hmm. di nuyu ñëpp di nuyu soppe yi ak xarit sama rakk doom ci Chérif Mame Mbaye mm-hmm. mu bay Sidi di bayran di sama rak di sama xarit di suñu andando di ko ñaan yalla yalla defal ko jamm non la ñuy jaare nuyu wa télé bi di ko teg directeur général Papa Ndiaye Sias di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm yàlla may ko wér yàlla yokk ko di ñaanal tele bi di la nuyu yow di nuyu cameraman bi Ndiol Laye ak Alsane ñëpp daal. ñu ngi jaajëfal ci nuyoo bu am solo boobu ñu bàyyi sa rakk ji rek mu nuyoo après ñu jàll ci question yi. ay da nga koy leb kon baax na yaakaar naa ne si kër kan nag day am fit nag day am fit doo jàkkaarloo téléspectateur Yoff TV nga waxtaan ak ñoom nuyoo ak ñoom ah, saako ñoom Ousmane mu nekk lu am solo solo rek euh, comme ni ma ko waxee ci njalbeen gi ngay waajal suba li nga xamante ne moo di quatre juin mhm. ngay waajal anniversaire boo xamante ne nii rek ci si kër nga ko teg ma lay laaj rek Ousmane euh, bi mooy sa premier anniversaire wala ñaata numéro ci sa anniversaire la sant yàlla bu baax a baax ci ay koy sant bu baax a baax defena koy def 2008 la woon jàpp 2009 ci ëtt la woon mhm. ànd ci ak Chérif Mambay laay defena 2010 le mhm. njëkk a taxas ëtt ba ne ma incha allah dina génn ci mbedd mi mhm. te rek olof Ndiaye def naa dul dëgg du yàgg bañ koy def defuñu ko woon ngir dara lu dul rek màggal suñu bisu judd màggal bis bi nga xamante ni yàlla dogal na ñuy tagg Seydina Limaam daf ko bisu sant yàlla bisu julli ci yonent bi waaye daf ko bis boo xam ne dañ ciy bégal suñu ay soppe ak suñu ay xarit 2011 ñu génnee ko ci mbedd mi mu ne ma dinañ ko baas moom sang bu tedd bi 2012 yàlla dogal ñu baas ko ba 2013 ah ren nag di suñu onzième édition te lu ndaw la woon waaye loo loo gis day màgg waaye at mu jot ñu ànd ci ak Chérif Mame Mbaye defe naa moo daan njëkk yëkkati alalam mhm. def ko si boole ceeg sawar ak ay ñaan ak lépp daal ba mu agsi fii mhm. loolu daal mbir mi demee mu ci onzième édition di bisu sant yàlla depuis 2008 2008 kon yaa ngi ci treizième anniversaire euh, ah 2008 jàpp 2009 mhm. ba waaw bañ koy door lu ndaw la woon waaye biñ ko commencé def muy gën a yaatu daal ci onze ans la la macha allah 11 ans loolu du lu ndaw. parce yaa ko wax sànq ci say biir yi wax. lu dul dëgg lu nekk du yàgg. mais est-ce que bi nga koy njëkk a commencé da nga ko def comme anniversaire boo xamante ne da ngay faral di joxe ay carte soutien pour nit ñi wuy si la wala da koy def rek juste pour sargal ki nga xamante ne mooy sa tarixa sargal li nga xam ne aussi mooy say woy ak tamit comme nu ñu ko waxee fësal li nga xam ne mooy sa liggéey loolu moo taxoon nga ngay ngay organiser lii di anniversaire bi. waaw biñ maa ngi fàttaliku si muxsinin di xale yi pàmbay mm-hmm. ñoo ko njëkkoon def ci kër ga mm-hmm. ñu nekk ay tuutànk yu ndaw mm-hmm. boobu ñun ñu ngi toll sax si jàngaway année bi ci toppaat daayira Seydina Mandione bu APEX si gii ñoo ma mayoon si ëtt bi année ba ca toppaat daayira maam Babacar nekkoon ca daagu daan ñu koy wax daayira maam Babacar defe naa yàlla dogal léegi sax doxatul ñoom it ñu may ma ko jox ma ci cadeau bu rëy muy kaamil defe naa kaamil baa ngi sama kër ba léegi ñu yëkkati kaamil boobu jox ma ko si cadeau boobaa léegi nag at mu jot si ànd ak daayira yi ba yàlla dogal mu dem ba nekk yëfu yoof at mu jot nag dañ ko conseillé si ànd ak daayira yoof ak dirigeant yi nga xamante ni ñoo jiite daayira yoof dañ koy door nag daaw ñu def ay carte mosuñu sax bëgg def kaar waaye conseil yi nekk suñu ginnaaw ñooñu xelal loolu nañu nit looy def muy màgg yow kese mënoo ko def utal ay nit ñoo xam ne dañu la siy jàppale man année bu jot dama naan du ma def carte ren jii dañ ma wax carte leen jaru ko ñu forse mais leen dañu def parrain yeeg marraine yi rek li des ñu dénk ko Seydina Mandione loolu daal la mbir mi demee daal Mm-hmm. mais est-ce que euh, anniversaire bi rek moom ngay def pour fësal wala aussi da ngay ay clip ak bi nga commencé ba léegi gis naa fi sa benn clip. mais mm-hmm. bëggoon naa xam ñaata clip depuis 2008 boobu nga wax nga commencé woon anniversaire yi ñaata clip nga fi jot a génne. waaw si dogal suñu boroom ñu koy sant bu baax a baax. Mm-hmm. def nañ ñetti kilip ñetti clip macha allah waaw def nañ trois clip. bi si njëkk 2018 la woon. muy njukkal Serigne Ablaye bi doon daw léegi nii. di ci toppaat di Seydina Mandione saahibul kiraam biñ mujjee def nag yàggul muy hommage à maam Ibrahima Séni waaw. est niveau international tamit comme bañ a biir Dakar rek euh, Sénégal ak niveau international am na ñoo xamante ne nañu luy di day say sikkar ak say say say clip. waaw ñu ngi sant yàlla bu bu baax a baax. Mhm. ndax euh, ku ne gis na li ñu liggéey diggante deux 2020 2021 ci sant yàlla te gis nga suñu bopp te taxul ñu teg suñu bopp fu ñu àggul ñu nag ñu ndaw ñoo yem wax fa dëgg yàlla wax naa ko ci rajo Jaamalaay FM keroog ba Seydina Mandione bi génnee maay profité sax di ñaanal saahibul kiram Seydina Mandione yàlla na yàlla yokki leeram tàggu si barkeem defe naa clip boobu moom a njëkk a siiwal amaana boobu siiwal naa waaye mooy sama clip bi njëkk a tas si bi ci dogalub suñu borom daal mam ibrahima seeli bi ñewaat kazalika waye mu nekk lo xamni gis nga suñu bop manam taxul ñu jàpp egg nañ fenn fi dañ japp ne ay nonga daara lañ te ñuy jang rek te ñu ci tamit te wuñ ci te taxul ñu jafel suñu bop ci daara dañ japp ne ci ay daara lañ nekk di jang ba léegi rek te lolu ñu defit ba àgg fenn fi ba mu wër aduna gep bo layam gep gis ko ba rañeyu ñu ngi wa di waxaat ne gis nga suñu bop te taxul ñu rëy taxul ñu ngi ngistal taxul ñu jàpp ne ñun àgg nañ benn niveau bi ñu ngi jàpp ñu ngi si daara gi di jàng ba léegi rek incha allah. Mm, d'accord mu nekk kàddu yu am solo. Mm-hmm. loolu entrée bi la woon rek. mais mm-hmm. bëgg naa sa nuyoo bi nga def léegi nii. Mm-hmm. nga nuyoo waat ak téléspectateur Yoff TV. Euh, ci sikkar yu am solo. parce que xam naa ne sa gars yu bëri ñu ngi xaar loolu. nga nuyoo leen ci nuyoo bu yanj boobu rek après ñu dellusiwaat ci bisu anniversaire beeg question yi incha allah. bàyyi laa yamul maas njool mi yaay borom diine alal nga nu yoon leeral nga ngirum diine bàyyi laa yamul maas njool mi yaay borom diine lislaam ndeysaan taxal na wàllu yu waxuma foore ji waare laay dogon ko nag réer ñee ñee bël ko lislaam safara ak lislaam jaaxal na wàlliyu waxuma foore ji waare laay ah, dogoon ko nag ree géeje bëggo lislaam sidina limaamu laay seen maam bay laay leen yeey ci téeréeb yàlla buur bi nu moom xam-xam ba lépp fuus moo ko saytu woo leen war leen ñu gàntu gëm yeese la bari waalo ku fekke woon ma ngay woote xam ne yaay ki fi mën xërëm yu rëy ca biir yoof xam ma yàq la kay muur sama yeneen ma ni jaar jaamu yàlla kenn dootu yow yeneen bi yaay bër mi xaloon yoonu lislaam ay baay laay ñu ndey ñu ngi gaajo ngi leeram yu tar ya ñuy naan ba yàgg ni xaddari sama du doon ñoom looloo di di سيد أمر الإسلام ay bàyyi laa yaa naay woon màkk yenu leer yaag sunuy ruu da ngay cëppeelu nga riir way dettu riir waan waaye ku gëm nu gëm ku bayaay du ñu tàggoo ba di waan Seydina Limaamu Laay bàyyi muntazar imam man yaati yaa naa woon màkk yi nu leer yaag sunuy ru ba ngay cëppee lu nga rir way det rir ku gem lu gem ku bañ du ñu ta go di waanu kon bàyyi laay bëgg naa la yeesulu sofu la yoon leen Muhammad bëgg naa la yónneen bi sopp naa la yónneen ndax yaay siduna xayrul anbiya bëgg naa la rasulullah yaay sopp naa la yónneen ndax yaay siduna imaamullah bëgg naa la Sayyiduna Yusufuna la yónneen ba yaay Sayyiduna xayrul anbiya makkata alaba wallaay mu jëfi ci saw mi mooy Sayyiduna Muhammad wallaay bëgg naa yaay laay sopp naa la yónneen ndax yaay siiduna xayrul anbiyaa ku la wóolu te xay ku la weddi tooro ndax yaay siiduna Muhammad bëgg naa la yoon laay laay sopp naa la yoon nen ndax yaay Seydina moom limaamu laay yoon ma feeñ na feeñ na baat baay laay Seydi wuutu kadam dëgg Seydina moom limaamu laay bëgg naa la la yónnee ay daay sopp naa la yónnee ndax yaay siiduna yaa ilaahana yàlla buur buur bi dolli bay Abdoulaye Kew laay ngenne may ko wér te guddal fana guddu yaa ilaahana yàlla buur bi dolli yàlla dolli bay Abdoulaye am sët yaa mu bay Abdoulaye may ka wér dégul del fana am sët yaa mu dégul del way na fi yàgg fi yàggee ànd ak wér may ka wér dégul del fana am sët yaa xam te guddal fanaaw surtout yaa Muhammad macha allah macha allah yal na ba yàlla wéral baat bi li nga ci maam li maamu laay am na solo macha allah di la ñaanal rek yàlla wéral baat bi may ne la gudd fan ak wér parce que yu mel ñu mel ni yéen dañ leen a soxla ci réew mi mhm. ay sikkar yu am solo macha allah mhm. xam naa ne dañuy soufflé tuuti rek ma may la ñu waat ci question yi incha allah naa nga noppalu tuuti bu ñu mënee dem régi tuuti ñëwaat tegal tëggal ñu benn clip Raw ñëw na ba dem seeti leen rakam jamono bañ a ba tee gaa yi yeewu leen bañ Sẽ đi Seydina ñëw na ba dem seeti leen rakam jamaam ba ñu jombatu ba tey lay walaay Seydina ma njoon ku ko gëm xaw ma looy xalaat lay walaay Seydina ma njoon ku ko gëm xaw ma looy xalaat lay walaay Seydina ma njoon ku ko gëm xaw ma looy xalaat séddi leen rakam jamu am bañ a jom. bilaay walaay séddina ma doon tukkal ko ma looy xalaat. bilaay séddina ma njoon a jubal. séddina ma njoon a jubal. bu fi ñëw danam ma jubal. du la teg sa jëf jëlubal. farlu fil bilaay walaay séddina ma doon tukkal ko ma looy xalaat. na te moo am na diine muñ na te moo ngor ga mat na amu na ngërëm xol ba yaa na mat na imaam am na ndam fi laay walaay Seydina ma njoon ku dëgg xama looy xalaat ma njoon moo di géej gu fees ba di fóot moo di géej gu fees ba di fóot bañ nga àlla yaa ngi si yaa yaw fay nan ko ziyaar modizul bilaay walaay sidina lol ku dëddul xamalay xalaat bilaay la njanaaw la ñëw na ziyaar ndax njanaaw la ñëw na ziyaar ànd ak gaaye ñëw di ziyaar loolu doy na kullu ziya zawil bilaay walaay jamono mujjisaat ya feeñ na ca moom ku xamoon la nekk ca moom kon nga dem Tuuba bi ca moom moo di sul bilaay walaay si ginnaaw mu doon ku gëgër xamalooy xalaat Kéba yow mi gëm Limaamu Kéba yow mi gëm Limaamu Kéba Seydina walaay dellu gëm Seydina ma njool ku ko gëm mucc min alaay walaay Seydina ma njool ku ko gëm mucc min alaay baax Seydina ma njool ku ko gëm mucc min alaay walaay Seydina ma njool ku ko gëm mucc min alaay te gëm yow mi gëm limaamu te gëm Seydina walaay dellu gëm Seydina ma njoon ku te gëm muccamin alaay walaay Seydina ma njoon ku te gëm muccamin anjoona baax Seydina ma njoon ku te gëm ay ca bu ngoog macha allah rek Ousmane na ci clip yi am solo yooyu li nga tagg Seydina Mandione am na solo macha allah xam naa dañuy del si waat rek ci question yi ba ci kanam bala ngaa duggaat ak ñun ci zikkar yi mhm. Ousmane bëggoon naa xam euh, zikkar kañ kañ kañ la la dugg xam nga am na ñoo xam ne depuis bañ nekkee ay xale mhm. dañuy bëgg benn affaire ba màggaale ko am na ñoo xam ne peut-être biñ demee ba màgg la leen amour boobu di dab léegi bëggoon naa xam Ousmane depuis kañ la la du sikkar dugg bi nga commencé di ci woy lii waaw di kontaan lu baax si question bi ma posé nit ki sa war a tontu. Mhm. defe naa sikkar si dañ ko nàmp. ndax suñu ay waajur ak sëriñ Ablaye la woon. Mhm. sama waajur bu jigéen daan sikkar si tantu sëriñ Ablaye. Mhm. daan ñu téye nii di ñu du ñu nàmpal di sikkar. kon dañ ko doon allah waaw du ñu doon la ci suñu ay kilifa. ñu juddu it. ci ëttu Seydina Limaamu ku ne xam na kër Baay Laay mhm. sikkar rek lañu xam waaw sikkar rek lañu xam ndax boo juddoo mhm. buñ lay tudd ñu ngi tudd yàlla nga génn àdduna mhm. bu ñu lay waajal ñu ngi tudd yàlla bu ñu lay robi ñu ngi tudd yàlla bu ñu delloo si kër gi Seydina Limaamu ne bu ngeen fa naree nekk di raak ku nekk di jaale débat bi di bari bàyyi laay ne tudd leen yàlla ngeen jaale ko njaboot gi kon fii sikkar la ñu xam boo juddoo rek sikkar rek ngay njëkk a dégg waaw ndax boo boo nekkee ca lalu accouchement ba sa way jur di matu yàlla lay woo foofu bàyyi laa ne kon nag foofu pareegul de mu ne bu nee ba si bisu tudd bi na ngeen tudd yàlla ba xol yu tooy ñu jël la tuddee la tuur wu seel alhamdulilah nag kër Seydina Limaamu boo fi ñëwee looloo fi am boo juddoo rek boo dee liir bu ñu lay tudd ñu ngi tudd yàlla ba xol yu tooy imaam nag tuddee la ci kër soso nak ngay dégg ci bo nekké lire bo maggé ci kër soso ngay xam waaw kon ci sa biir yi wax kon mën na né kon daanaka kon laa yeen ñu bari ñu bari ay sikkarkar yu bari kon war nañ fee war a mën a am waaw ñëpp ay sikkarkar rek dafa am ñu yalla fessel rek mhm. mais am na ci ño xamni tay tey bu ñoon lay mi rek caméra rek loolu mhm. la neexee baat ara mhm. <laughs> waaw waxtuma ak ñeneen ak ñeneen <laughs> mais nak nattu la bo xamni yalla moy nattu dogal na ñi ñoy fess ci mbir mi mais am na ñoo xam ne tey bii bu njëkkoon sax danga nga dugg si kër bu ñuy fóot ñu ngay sikkar bu ngay taal añ ñu ngi kar léegi la rek waaye danga nga nekk si kër gële keneen nekk fi yow ngay fóot di sikkar ka nekk ci kër yi togg di la aaw beneen kër fii looloo fi am waaw moo tax libaas ñag ne ne sikkar guddee bëccëg ni riirum géej yoneen jàggoon a yéeju njum du néeju fii loolu la nga xam muy tudd yàlla ba xol yu tooy rek waaw léegi euh, yaa ngi ci euh, sikkar bi mhm. ma bëggoon na laaj rek est-ce que tamit des fois du am ay jafe-jafe comme par exemple nga bëgg a génne clip peut-être nga bëgg eggal sa tur foo xam ne fu sori la est-ce que des fois du am ay jafe-jafe parce xam na ne yoonu yoon yoonu jub day day bëri mhm. des fois du ay jafe-jafe ci sikkar beeg bëgg egg fenn fi euh, yenn koñe yeeg yenn kii ba fi nga bëgg a egg mu nekk ay métti daal ci yow ah déedéet wala la wax rek ñun dañ nekk si daara gi di jàng rek yooyu yëpp xalaatuñu ko sax bàyyiwuñ si xel tamit ndax euh, bu ñuy dem ñu ngi ànd ak njàpp comme ni ñu ko sang bu tedd bi digle mm-hmm. nee bi ngeen dem ci daayira yi mm-hmm. ne na ngeen jàpp ba mel mel ni sa yéen a jëm jumaa mm-hmm. ñun daayira yi dañ ko jàpp ne jumaa lañ jëm wala jàkk ji lañ jëm moo tax bu ñuy dem dañuy ànd suñu njàpp ànd ak yàlla ak li Limaamu ndax waykat bi nee na ponk jàppax julli mi ngeen fi màggaale fu ngeen fi jëm rek yàllaa di seen àndaale ñun na foofu la ñu wéeru ba yenn yi ni ngi xalaat sax wax fa dëgg yàlla duñ ko xalaat gisuñu si tamit lu ñuy ragal non par exemple doogu mhm. ma la xam nga des fois mhm. benn milieu ay ndaw yu bëri di ko xëccoo dëgg la par exemple milieu bi nga nekk sikar mhm. ku ne xam ne léegi eh, tag tagg yenent bi tagg tagg sang yu baax yi nekk au Sénégal liñ naan dafa xew tey jii ñu bëri ñoo ci nekk di ko di ko def léegi nag en général soo gisee genre liggéey yooyu mu bëri xëccoo bi day daal di bëri kenn ku ne day bëgg a gën a siiw sa morom dëgg la ah, foofu laa la doon laajee est-ce que ay xëccoo ah. ay loolu mënul ñàkk ci géew mënul ñàkk ci géew waaye ñun gisuñu ko moom ndax euh, yàlla may nañu fulla may nañu caractère may nañu personnalité ba nga xamante ni yu bëri duñ ko duñ ko def duñ ko nangu te nag ñu yaru ci keppaaru Mame Mbaye te ku ne xam na sangaw tëdd bi ci fullam ku ne xam na ko ci ak yaram ku ne xam na ko ci ak dalam xam na ko teeyam jikko yooyu nag mu làmboo ñun ci moom la ñuy roy rek moo tax géew bu ñu demit dal googu ak teey googu la ñuy yóbbaale moo tax du ñu xëccoo du ñu dara tamit lu yàlla dogal suñu dañoo xam ne loolu yàlla dogal te nag ñu nangu dogal bi yàlla dogal si suñu ay moroom mm-hmm. du ñu def kenn lu bon yéen nañ ñëpp teraanga mm-hmm. waaw loolu waral fu ñu jëm ànd ak suñu rakk yi mm-hmm. ngir ñun nii fi ñu toll nii suñu ay mag ñoo fi nekkoon may profité sax si occasion di nuyu ak di ziar sama mag ñi nga xamante ni tey ñooñu ñoo nekk suñu ginnaaw jiital ñu te njiit ñu ci lii ku ci mel nii Baye Badou Alioune Ka ak suñu maître Ibou Sène mi nga xam ne tey moo jiite daayira yi xale yi fii waaye ak suñu mag Pape Ransar mu ngi ci États-Unis Ndiaye Racine ak Ndoo ñoo ñu tey seen tànk lañ jaar rek ba ak si fii ñu nit noonu la ñu àndee suñu rakk yi ngir xaalal leen yoon wi rek ndax ñoom niñ fi nekkoon ba jógee fi ñun ëllëg noonu la fi jógee ñoom ñu nekk fi waaye yéenewuñu kenn lu bon ñu ngi yéen yëpp teraanga te nag xalaatuñu tamit ni am na ñoo xam ne yéene nañ moom xalaatuñu ko. en tout cas daal ñu ngi ànd ak yàlla ak yeneen taam bu tedd bi rek <laughs> nga ànd ak ku jara àndal macha allah. Mhm. léegi bëggoon naa laa laaj tamit est-ce nit dina am bisam. Mhm. woo ci pour nga zikkaral ko. Mhm. ak tamit fekkee ne loolu am na ba xam dangay ngay fayeeku wala da ngay dem rek ko ngir yàlla te yàlla tax comme say am di jàmm ak ñeneen ak ñeneen. waaw loolu moom xalaatuñu ko di fayeeku kenn. macha allah ndax yarewuñu loolu te kër gi loolu yorewuñ ko kenn. Mm. ndax dañuy def te yàlla rek a tax waaw fu dëgg yàlla fu ñu nit woo dañuy dem mm-hmm. au contraire sax ñi ñooy paasal suñu bopp mm-hmm. ñooy jël oto jënd essence mm-hmm. wala ñooy jël taxi dem ngir yëg-yëg ak cofeel gi kooku am ci ñun man day fàttaliku ma fu ñu ma see toog ne nit fay ñu nangam ñu ñëw wayal la da ngay toog sax ba nekk sa waxtaan sax gars yi kenn woo la Ousmane waaye diw de mooy anniversaire wala diw de nen day ngénte dafa bëgg ñëw si karal amee na neen dem parce que cofeel gi mu am su suñun rek la ñuy xool dem na ñooy paas suñu bopp bu ñu ñibbi sax du ñu yëg des fois da ngay ñëw ba ñibbi si sax mu lay yónnee naa la waaye yéen gisuma leen am leen paas bi ñu nekk li taxuñu fu ñu taxuñ ñoom mooy ngir béggal la ci laa ilaha illallah béggal la ci seydina limaamu mii nga gëm ak yéen muy yonente bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam di démb di tey nga gëm ko yaakaar ko ay waykatam nekk fi nga ne dama xewle yaakaar leen si ñu nit yaakaar googu la ñuy amaat ci bàyyi laay ñëw defal li nga bëgg waaye du ñu fayeeku kenn suñu fukki xel ak juróom-ñaar. xalaatu ko waaw xalaatu loolu. muy <laughs> lu am solo solo muy wax nga dëgg parce que nag tàggkatu yeneen ci bi moom yaakaar naa ne. Hmm. même soo fayee ko sax kenn mënu laa fay. déedéet saa yoo ko tuddee rek xol yu bëgg. wallaay loolu rek yaakaar naa ne kenn mënu la kaa fay. wallaay dëgg la la fayee sax mënuñu laa fay. dëgg la euh, bi ma lay laaj rek avant nga ñuy béggalaat. balaa hmm. temps bi di ñu xoj. Hmm. mooy que est ce que tey tamit si kër yi nga xam ne moom nga choisir di ko def. peut être fekkoon nga ci benn situation. situation changer sa situation ci ci ci loo xam ne daf la jëmale kanam. maanaam. maanaam comme bi ngay commencé. Mhm. peut-être nga nekk ndaw. Mhm. Euh, xëy na poos yi feesagul woon. mais mhm. bi nga commencé léegi dafa changé sa situation économique. poos yi fees poos yi feesul poos yi feesul balaa balaa may génn jël ay koñ poos yi feesul poos yi dara newu si. boo fa dégg yàlla mooy li ma la wax si début bi rek. mooy dañuy jàng rek. waaw dañ na si daara ji di jàng àgguñu fenn fii suñu tur àgg sama suñu image àgg sax ñun àgguñu fa dafa dëgg yàlla si suba dama génn di dox mhm. yóbbu sama doom mu jàngi bay aññee ko benn meer dab ma xaw ma ko sax si marché bi mhm. ne ma laay maxtar ñu ngi lay ñaanal yàlla nga àggale jàmm suba incha allah yàlla yàlla defal ndam ñu ngi lay béggee ñun ñëpp moo wax ñu toog foofu te xaw ma leen sax waa xoolal fii jëmm ji ak tur bi àgg nekkati ñoo ñu ngi lay bégg te xamoo leen sax di ñaan te lépp rek mhm. ñun bismu suñu bopp mhm. wax fa dëgg yàlla duñ gis sal du dara ay ndaw lañ rek yuy mhm. jàng ah, beneen bi si des mooy changement amul si ñun <laughs> Ousmane Ousmane moo moo nekkaat nii ba léegi rek yàlla ñun ñun dañu am suñu ay métier Euh, yàlla moo ngi nattoo lii mhm. amaana nag ñu jël ko teg ko nele ngir Seydina Limaamu liggéeyal ko rek jar na lu ne mhm. waaw liggéeyal Baay mhm. jar na lu ne waaw sama sëriñ nee na mosoo gis musicien bu génn àdduna nañu woo sabar yeeg yi ko na yooyu ñuy defal militaire waaye ku fi génn àdduna nekkoon ci yàlla yi yàlla dalay teral avant avant ñu lay rob waaw ñun nag wax fa dëgg yàlla lii dañ ci fekkoon rek moo ci ne ba léegi mhm. lu ñu ci yàlla sëgal nag ñu xam ne loolu la dëgg la nag tagg yonente bi léegi dafa développé mhm. waaw ndax bëgguma nag wax amuñu dara waaw <laughs> wax dara ne waaye yàlla waaw daal waaw waaw yàlla waaw amin amin am na si yaakaar ndax barke maam mbay laay la ñuy doxee waaw barke maam mbay ndax Euh, téye nañu. Mhm. ñaanal ñu. Mhm. ne ñu dem leen. waaye nag sama benn doyen waykat dafa woy Serigne Ablaye. Mhm. mu ne mu ne saa yoon wi daa sori lool. lëndëm na sax ba kiriis mu ne waaye xuus naa. te jom ba dëppaat. mu ne ko yaay sàmm bii rawale. maanaam du gën ki tagg Seydina Limaamu ak njabootam. waaye mu fekk yoon bi lëndëm tamit te xuus na ba pare nag oh. waaye nag. rëy na wala ëpp na mhm. ci moom mu naan damay delluwaat yi li may def mhm. mu nekkoon sëriñ Ablaay mooy sàmm bi rawale te loolu la yàlla dogal te mhm. mu nekk si xalifab Seydina Limaamu kon moom mooy sàmm bi ñuy sàmm ci yoon wii ñu nekk jamono ji moo njaboot gi topp ci ginnaaw di ay rakkam ak ay doomam ñu ngi ñaan nag yàlla may ñu ay oto may ñu ay kër <laughs> waaw loolu ñu ngi koy ñaan ci barke Seydina Aliou waaw incha allah day ñëw dégg laatal téléspectateurs yi tuuti rek bu ñëwaatee dellu si waat ci li nga xam ne nag mooy anniversaire bi mhm. ah, nga gën koo yaatal ak suba appel yi ñu ciy wooteeg ak ni nga ko bëgg a doxalee incha allah mhm. balantaa bu diñu xoj ñu bàyyi la tuuti rek nga bëgg laat téléspectateurs yi wasal yaa rabbana ci Mustafa karaman ndeysaan julli si xayrul ak saaba yaa ñëkk ma wax tuuti gi taarixu ma ñoon ñu doy te doy li maam ak Isa ak yàlla bu bi nu gëm Seydina Mandione Laay atum ju neex ñetti téeméer moo di mawlidu ndeysaan ba at ma del la bàyyi laay feeñ mu daa di ko gëm limaamu ne ñetti ruu ñoo ko njëkk a gëm ba mu feeñee ruug Seydina Mandione moo leen ñetteel ci li am amoon na xaasi nangu ñaan loolu kay dafa am jàngal jawaaba sëriñ du nun bind ko di nga xam Seydina ma ndolay bur yalla mos na ko woon mbootum xilaafaam mu xëy xabaar ko bàyyi laay mu lolu kaan lolu faw dana am te lolu yalla dakawan mu jël jant beek weer wi biddeew yëpp ramas leen def si yow mi sataan Seydina ma njoolaay ma darkate naan kaan yaa nu doy mu ne leen ñun yëpp naan toppi sa moo di maag ni ma gëm te loolu feeg na ba bàyyi lay nelawee te ñu nar a rob maam li bàkk isa teewul ñu joon ndigalam ma ñëw na taxaw yor jaasi ku fee bàyyi laay te isa teewul dundam dana seydinaa ma topp na seydinaa isa magam ñeent fukki at yu kamaal te mas la yox yoxi baa muy yu xat sa diir fii sannatin hasasin la jot xilaafa ga neel la toll ci ay aat boo mënee mën a am Seydina ma njoon jot na xilaafaam si ak mag loolu moo waraloon daawul faral di tukkeek di wër di seet fu mu jëm daawul wëreel la ay hadiyaaki alal ku doylu wala tu tiisal kenn ngi rek alalam moo amee woon muñ bañ ne mat baloo kalabal mu jëm la ko fay ngi rek daw xaq bés ba nu jëm am ngaan ci baatin ba mel ni garta kaw ci lawet ba mel ni am xar ma ñoon yaa ñu laax ba dem sëñ naa ma joolaay kiraaju rëy nga làmboo tax mbindéef yi xamul sa mbir nekkoon kuy mbindéef sàkku si ngërëm bésub keroog ba ne sëy naa ma njoon fi jóg ku xam ma njoon xam palaasam tiit na xol bëgg la salli ya rabbana Mustafa karama jullil ci xayrul wara ak sabaya bilaay walaay Seydina ma ñoonu ku këgë xaw ma looy xalaat walaay Seydina ma ñoonu ku këgë xaw ma looy kiram Seydina ma ñoonu ku këgë xaw ma looy xalaat looy Seydina ma doon ku ko gëm xaw ma looy xalaat kiram am na diine mooy na demoo am na diine mooy na demoo barka am na ngërëm xol ba yaa na man na am na ndam fi ku fees bëri fu ba njaay alla yaa ziyaar yow xay nan ko ziyaar moo di suur gi laay walaay sidina ma njoon ko këgëm xaw ma looy sidina ma njoon mu ya feeñ na jamoo mu ya feeñ na jamoo xamoon la rek na dem Tuubaa di sa moom moo yaay Seydina ma jooy ku ko gëlëm xaw ma looy xalaat ak def leen ni yow mi gëm li ma mu dégg yow li ma mu dégg Seydi Roh walaay dellu gëm waayu nay seeni ku ko gëm ca min walaay walaay waayu nay seeni ku ko gëm mu ca min bayu ndey seeni ku ko gëm mucc min walaay walaay allah am na solo am na solo li ma koy waxee rek Ousmane laay yal yàlla wéral baat bi rek may lu gudd nga yàgg ñoo béggal ci zikkar yu am solo yooyu macha allah xam naa dañuy dugg directement nga fàttali ñu anniversaire bi date beeg lieu bi fi muy amee yëpp ak appel yi nga ci woote bala ñoo del si waat bi waaw anniversaire bi daanaka suba la. ajjuma mm-hmm. le 4 juin. Mm-hmm. fii ki télé bi en face pharmacie Al Mahdi. Mm-hmm. ah mise en place 17h30 jàpp 18h. incha allah bëgg mu si woo ñëpp. soppey xarit yi am di jàmm yëpp ñu ngi leen di woo bés bi nag. ñu jël lépp duppeeku duppee ko Seydina Mandione saahibul kiram di ñaan yàlla yàlla yokki leeram waaye di ci rendre hommage doomam ju tedd ji xamante ni moo noppalu rek yàggul suñu bàjjen day seeni laay bintu Seydina Mandione saahibul kiram waa di ko sargal comme ni ñu koy defee at mu jot jëmm ji nga xamante ne tey jii bokk na ci li ñu tàggat ci diine ji bokk na ci ki nga xamante ne tey bu ñu ba agsi fii ginnaaw yàlla barke maamam lépp moom la muy Chérif Mame Mbaye Laye yu yàlla may ko wér yàlla guddal fanam moom lañ ciy sargal waaye di ci rendre hommage tamit ay jëmm yoo xam ni yàlla leen boole woon ak ñun ñu sopp ñu lool lool lool lool ñu fa yéene leen ñaanal ci ci ci bés bi ah di ñaan yàlla may ñu ñu àgg si bisimilahi génn ci alhamdulilahi rabil alamin ñu ngi woo ñëpp daal ñu ngi woo soppe xarit yeeg ñëpp daal ñu ngi leen ciy woo incha allah léegi euh, téléspectateur Yoff TV ñu ngi lay seetaan mhm. te xam naa tamit bëgg nañu nga wax leen lan nga préparé ci bis bi comme ça ñi nga xam ne ñoom nga invité bu ñu ñëwee yan surprise moo leen di xaar foofu ci li nga xam ne mooy sa anniversaire. Ah, surprise nga bëgg a wax. non non xam nga eh? daal. bari na. leen <laughs> ah. pareel daal mu leen di xaar. Mhm. bu ñëwee daal fekk fa gars yi rek incha allah ñu bégal leen ni ñu koy defee mhm. at mu jot. Mhm. am na daal fi pare waaye nag ñu wax ne daal lépp si Seydina Mandione la. lépp daal ñu ngi koy delluwaat jëmm gi tedd gi naa Mandione. incha allah rabi daal bëgg nañ. ñu teel a ñëw fekkee bu ñuy bégal suñuy soppe li ñuy bañ mooy at mu jot des fois ku ñëw daal la tax bi ngay woy xaaroo ñu ñu bëgg daal ren bu ñuy def prestation bu fekk ba soppiyee ñëpp daal ñu bégal leen si si yàlla bégal leen ci Seydina Limaamu waaye bégal leen tamit ci Seydina Mandione saahibul kiram incha allah léegi yow bi kan nga ko tuddee nga Seeni Laay waaye di ci sargal Serif Mame Mbaye am na nag ay parrain yu nekk ci ci biir ñoom ñëpp ku si nekk xam na boppam ku si nekk it mu ngi ñuy seetaan leen wax ne ñoom it bés bi seen bé ah, damay bañ a lim juum waaye ñu si tànn rek ku si mel ni ministre Abdoulaye Diouf Sarr ak ñamuy àndal ñëpp mm-hmm. ak ñoom ñu ngi si des daal daal mm-hmm. euh, Mamadou Sylla Euh, Moustapha Tall euh, ñoom ñëpp daal seen bés la ñu leen ci woo ñëpp euh, saltige Mouhamed Ndiaye maam Ablaye Bamar Ousseynou Waar leen ci woo ñëpp ñoom ñëpp daal bés seen bés la parrain yi marraine yeeg ñëpp daal seen bés la daal ñu ngi leen dañuy bañ a lim comme indi wuñu bi dañuy bañ a lim juum fàtte ñeen nit ñi ah. waaye ku si nekk it mu ñuy seetaan xam na ni bés bi bésam la mm. ñu si woo ñëpp di fas yéene si ànd ak tamit group bàyyi laay amul maas mm. di sikkarkat yi nekk yoof gépp tey ji yàlla dogal ñu yore drapeau bi ànd si ak Ibou Iba Laay di suñu xarit suñu doomu ndey suñu soppe moom it di waajal bésam bu ñu ci la kat maa ngi wax soppe yi bu ñu jógee ci la kat incha allah nañu àndandoo waajal la 18 ak Iba Gaye Laay incha allah rabbi fii ci péncum Yoff incha allah Ousmane Laay mu nekkoon lu am solo solo solo comme ni leen ko waxee rek waa Yoff yéen a ko déggandoo na ngeen teew nag yéen ñëpp ci bisam bii di anniversaire anniversaire am bi mu faral war a def suba le 4 juin incha allah fële ca Layeen en face pharmacie Al Mahdi à partir de 17h30 spécial Seydina Mbañoon Laay hommage à Ndeye Sini Laay nii la anniversaire bi na rëtëddee kon nag waaye Yoff bu leen ko wute na ngeen ñëw jàppale ki nga xam ne mooy doom bu Yoff leen fas yéene bégalee ci anniversaire am bu mag boobu di nuyo waale Baye Abdoulaye Thiaw di khalifa général des layen ma koy ziar bu baax ba baax di ko ñaanal gudd fan rek ak wér mu yàlla bàyyi ko ci kanamu njaboot gi ba ci kanama kanama kanam kon nak gis ngeen anniversaire bi Ousmane di waajal kon nag waa yof comme ma leen ko waxé ci ben gi rek ñoo leen jàppale doomu yof bi ñoo leen jàppale ki nga xam ne moom dafay fas di zikkar di sag ki ki zikkaru Laayeen parce que kenn ku ne nag fi nga am soo sañon boo xewlé sa bis say mbokk ngay njëkk a gis parce que xewle gis say mbokk xewlé gis nga jege dafa neex te ku ne xam na ne zikkaru laayeen dafa neex mais Ousmane ma lay laaj mu faral di gis sa kili bi yëpp daal yow yu weex tàll rek nga ciy sol est-ce que loolu forcé forcé quoi wala wala aada la tamit wala tamit am na loolu moo la neex daal am na bu ma solul weex ah bon waaw am na man yi ma gis fi yëpp yu weex tàll weex mais nag ñun suñu clip moom boron doon sol fukki couleur ak juroom ñaar weex na ci rax ndax weex mom mandarga la ci kër sayyidina Ali maamu symbole la ci kër sayyidina Ali ndax mhm. kilibu layen pour man bo ci gisul weex rek mhm. dese naa nekk laayeen loolu moom dañ koy baye xel bu baax ba moo tax suñu clip mhm. des fois sax bo xol weex bi mo ci ëpp ah, ndax weex lañu baye lay sante ah, ndax couleur bi ngay sol mën na am tas wala sobe te ñun suñu clip yépp ci bérébu jàmmalaay yi julli kay lay doon moo waral ñuy bëgg a weex ngir boo ñëwee xam ni weex bi am na tache di nga ko mën a bàyyi si kër ga. mais sa sa dernier bi nga tourné fii bi nga ko tourné léegi mhm. yàggul. yàggul waaw matee weer ci lay yem. muy hommage à Mame Ibrahima Séni. Mhm. bi nga mujjee gis léegi mooy Seydina Mandione boobu ñu ngi ko tourné ci deux mille vingt. waaw deux mille vingt dañ ko tourné. est-ce xam nga tamit da gis artistes yi ñu faral di bind ay woy yu bëri di teg. est-ce que instant bii nii ñu ngi ci bi di ñu ngi ñu ñu ngi ñu ngi bind daal. waaw am na yeneen yu ñëw nag. Mm-hmm. am na yeneen yoo xam ne ñu ngi koy préparé. Mm-hmm. incha allah ba ci ñaanu maam Joon bi di ñëw sax ñu ngi waajalaat incha allah leneen ci Seydina Ma Joon mm-hmm. ak tam yeneen yoo xam ni. ñu ngi ko préparé daal di si ànd ak gars yi di si liggéey. te boo ba léegi ñu ngi ci liggéey waaye nag ñun lu ñuy préparé ñu koy préparé at yàkkamte wuñ ci dara. waaw yàkkamte wuñ dara ci lu ñuy def. ñu ngi préparé daal yeneen mbir yoo xamante ni tey jii buñ bés buñ ko woyee soppe yi bëgg axlu laay bëgg te lépp nag day delluwaat rek ci woyu mag ñi rek waaw lépp day delluwaat ci woyu mag ñi rek waaw est-ce que tamit euh, parfois mhm. woy bi doo xalaat benn jour dugal ci mbalax bu xaw a sax parce que léegi gis nañ ko fi mhm. di zikkar wala di cant wala di def nga dugal ci mu xaw a mbalaxe daal mhm. xaw a sax sax est yow xalaat nga loolu dans l'avenir ci sa ay son wala xalaatuma ko nag. Mm-hmm. waaw xalaat xalaatuñu ko nag. <laughs> waaw dëgg yàlla dëgg yàlla xalaatuñu ko moom. <laughs> ndax dama benn waa joo xam ne sama benn xarit fecc mm-hmm. tànkee dafa oyof ñu koy wax njoon laay <laughs> tànkee oyof xam loolu moom euh, soxna si ñun mm-hmm. xalaatuñu ko te fu ñu fukki xel juróom-ñaar xalaatu ko ñun ñu ngi ci tawxiit tagg seen alimaam ak njabootam rek. te nag ñaanuñu yàlla it mhm. def lu ñu suñu ay kilifa di mere ñaanuñu yàlla yi def lu ñu lu ñu ak di xeebee mhm. ñaan nañ yàlla toujours ñuy def loo xam ne rek day siggil diina ji mhm. ak lu laay dañuy gën a fonk dañuy gën a naw njabootu bàyyi laay gën ñu fonk ñaanuñu yàlla teggi teggi teggi teggi teggi yoon wi daal li fi mag ñi bàyyi woon rek dañ fa seenee jaar daal waaw macha allah Ousmane amatina solo émission bi xam naa mu ngi xëcc ci ci jeex. Mhm. dañuy bamtuwaat rek anniversaire Ousmane bi di am suba le 4 juin 2021 à Layène en face pharmacie. almahdi di partir de 10h30 mu ci woo mbokk xarit am di jàmm mhm. à travers ci Yoff TV nag ñu leen di ñaan yéen ñëpp ngeen ñëw teewe bis bii nga xamante ne moom la Ousmane di def mhm. parce que ni ma ko waxee sànq rek booy béy ci say weewu tànk noonu la ko olof di waxee Ousmane bu gëstoo gis waa Yoff dina gën a am courage te dina ko yokk fit kon nag waa Yoff ñu ngi ñaan ñëpp ñu teew ci anniversaire bu mag bi di émission bi mi ngi xëcc jëm ci jeex xam naa ne dañuy tàggatoo rek Ousmane mhm. après bala ñoo tëj émission bi nag nga bëggalaat téléspectateurs yi dañ lay mhm. bàyyi nga tàggatoo waaw xanaa di delluwaat rek di santaat yàlla bu baax a baax mhm. di ko sant sant goo xam ne du jeex mukk waaye di delluwaat di julli ci yonentaam bu tëdd bi nga xamante ni moo weexoon démb ñuul tey di ñaan yàlla fayal ñu ko muy seydina limaamu alayhi salatu wasalaam yàlla ñu yàlla fayal maam bàyyi laay di ñaanal tam gu tedd gi te yonte yàlla nga gisaa jiite leen yàlla yokk seeni leer taaj seen barke ñaanal ko seydina manjoon saahibul kiram seydina babacar ak njaboot seen i njaboot gi topp seen ginnaawam gépp noonu la ñuy delluwaat di ñaanal sërif abdoulaye yàgg fi lool te ànd ak wér waaye abdoulaye yàlla na fi yàgg te ànd ak wér ak njabootu Baye Laay gi topp ginnaaw ay rakkam di ñaanal Chérif maam Baye Laay yàlla bàyyi ko fi may ko wér yàlla bàyyi ko fi may ko wér defar ko ay rakkam la ñuy ñaanalee tam Ibou Séni Ibou Séni Sarr mi nga xamante ne tey jii suñu carrière moom it na ci ci wàllu way wi noonu lañ koy ñaanale yàlla defal ko jàmm yàlla barkeel ko ñaanal njabootu Baye Laay gépp di ñaanal suñu xarit yëpp gaa yëpp suñu xarit yi nga xam ne ñu àndal ci géew yi di si kar damay bañ a lim waaye su ma nee groupe Baye Laay amul maas rek yóbbu na lépp di ñaanal yoof Eh, daayira yoof tam ñu leen ñaanal di ko teg si loxo papa Gana ak alaaji peul ñi nga xamanteni ne ñoo jiite eh, daayira bi ak papa Ndiaye ak isa Faye ñom ñëpp leen ñaanal di ñaanal sama gaay yi may andal yëpp njoon lay Baye Seydi Baye mansour ak Abdou baxé ñom ñëpp ñu leen ñaanal Babacar Ndoy di gaay yi xamante ne bis bi ñoo ñëkk a alal def ko euh te lepp di depuis xalé ba légui ñuy and di ñaanalit sama yaay <coughs> yalla bàyyi ko fi te may ko wër yàlla sàmm ko sàmmal ko njabootam ñaanal samay mag samay rakk ñaanal sama soxna it yàlla yàlla defal ko jàmm sama doom Marème ma xëy su ma gërëmu ma àggee daf may poñe waaw Marème Laye maa ngi koy ñaanal bu baax ñaanal samay goro am naa ñu ngi may seetaan waa ndenaat di ñaanal tam waa ndenaat gépp nga xamante ni foo la sama soxna jóge leen ñaanal ñaanal ñuy gërëm ñëpp daal di sant ñëpp mm. di gërëm waa télé bi waaye dala ñaanal yow ci dalal bi ngi ñu dalal tey jii waaw di kontaan ci yow di ñaanal sama rakk ji encore une fois muy bayraan mi nga xamante ni mook ay frère am Seydi Mambay ñi ànd ci géew yi tënk xam lu ñu suñu daara te ñuy xale yoo xale yu am avenir xale yu mën la ñuy def defe naa ñii buñ téewoon micro ñun duñu rus ndax mën mën nañ li ñuy def te yàlla may na leen macha allah daal li naan yàlla barkeel leen am naa clip boo xam ne tey bu ko ala tegoon am na gitaar koy dégg ci suuf moom moom bii la waaw muy suñu rakk ju baax di ñaanal ay frère am Seydi bàyyi moo du di doom ci mambay laay mu bàyyi Seydi Thiaw di sëttu Seydina Limaamu ñu ngi lay ñaanal bu baax di ñaanal suñu ay jigéen ñi àndal ak mm. gërëm ñu ñaanal ñëpp daal gërëm nañ ñëpp waaw gërëm ñëpp jërëjëf jërëjëf am na solo mais <coughs> nag gis naa ne ku nobaate nga yaa ngi bamtuwaat sa dëkk jaba ji fi mu jóge rek mais nag noonu la <laughs> moom tamit euh, def na fi lu am solo macha allah dafa mm. bañ a wax mais mais bi ngay woy gis naa ne bu dugalee <laughs> baat bi neex na trop macha allah yal ko yàlla def na amiin moom tamit ba mu egg tey jii fi nga egg ni amiin nga jaajëfal vraiment ci disponibilité bi ak euh, choisir bi nga choisir Yoff TV pour ñoo jàllale fi li nga xam ne mooy say production di la jaajëfal bu baax a baax mhm. téléspectateur Yoff TV di leen leen indiloon ci seen spécial anniversaire bu Ousmane Laye ci mhm. anniversaire bi muy dëgmal suba incha allah ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci teewlu bi ñu leen teewlu li seen plateau spécial mhm. technicien waa régie ñoom ñëpp bàyyi ma kenn joon laay ñoom nga xam ne bu dul woon ak ñoom kenn duñu mën a xool ba diñu dégg ñu leen di jaajëfal mhm. dem ca régie rek di nuyu Ousmane bu baax a baax a baax ak Soxna Jaar tey nag suñu technicien bi moo génn fii ci Missóor gis nga Yoff TV lu spécial lañ am technicien yi dañuy misóoraate moom a misóor nii macha allah misóor bu yanj bi di ko jaajëfal moom Soxna Jaar di jaajëfal téléspectateur yëpp di leen jox dig daje rek suba ci anniversaire Ousmane bi à partir de 17h na ngeen fa daje waa Yoff TV incha allah ku leen fa dëgg ne massa mhm. li lañ leen indiloon ci seen plateau spécial di jaajëfal ñëpp rek képp koo xam ne rek yaa ngi safoo sa tele bii di Yoff TV mhm. ñu ngi lay nuy di la jaajëfal di nuyu sama waa dëkk Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar di nuyuwaat encore une fois Baye Abdoulaye Thiaw Laye di ko ñaanal gudd fan yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam a kanam mhm. di nuyu borom kër gi di siyaas di ko ñaanal moom tamit yàlla may fandam ci lii di Yoff TV bi mu ubbi di bégal askan Yoff ñu koy jaajëfal bu baax a baax mbokk yi ñu leen di joxaat digg daje rek ba lënd incha allah ci seen plateau li ci kër gi ak waa mbeek ñoom soxna si nekk ñoom soxna Xadi di leen jaajëfal rek di leen wax merci beaucoup ciao ciao à la tantôt. waaw. Ah. bismillah rahmaani rahim alhamdulilah bil